asiru malaraayi nasiru wasan

tiret yoyé point euh, muy ay xibaar yo nga kon xibaar officiel lañ koy woowee batana na kon fassina yéene yeen ci journal officiel bu Magal Touba comité d'organisation bi euh, dico amal euh, bis bu d'un dana bokk ci xibaar ci gëna le président de la république du Sénégal maître Abdoulaye Wade di amal jamono ji tukkib néméku fi ci dëkk bu sel bi batana kon niki demb démb la egsi bi nga xamee ne juróomi waxtu jotna falé ci ca héliport bu mbacké bokkoon na ci ñamu andalon premier ministre Souleymane et ak maître Madické Niang Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbacke moom moo ko gàttandu woon foofee ca Libor ànd ak moom ba fi nga xam ne moom mooy guy mind mu fekk fa Serigne Sidi Mokhtar Mbacke mbokk yi kon ci xibaar yi dina déglu Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbacke ci kàddu yëmu yëkkati bokk na ca ne moom Abdoulaye Wade ñu ngi koy jaajëfal a yëkkati bi muy tontu wax ne dafa gis ne jiitu réew yu bari bu ñuy euh, prêter serment dañuy xët euh, ci euh, téere ba nu gëm ba tax na kon moom gisul weesu lenn war mën a tax mu daal di nëbb li nga xam ne moom la doon muy murit di taalibé Serigne Touba bokk nay ca kàddu yu mu yëkkati euh, fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar bii nga xam ne dafa jël dogal ne dees na ko bañ a liggéey te des na la ko fay nee na loolee nag ba mu ko defee ay kilifa yu bare bari yu bokkul sax ci tarix murit wala bokk yu bokkul sax ci yoonu murit ñooñee sax euh, woo nañ ko téléphone di ko jaajëfal ba tax na kon gis na ne 18 safar googee nekk na bis bu xam ne Sénégal yëpp ñoom ñoo ko war a màggal euh, bu nu ne moo gàlloo mbirum wérgi yaram ndaxte doon na fi amal tukkib nemmeeku euh, gane si kon Serigne Sidi Mokhtar Mbacke ci waxtaan nga mu amal ak Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbacke wax na moom Modou Diagne da ne donte ñu ngi dégg choléra ci dëkk yi nga xam ne euh, dañu wetoog Sénégal moom nag jël na li nga xam ne mooy matuwaay ba fii ci tubaa incha allah deesu fi nemmeeku benn kaawu kolera euh, bu ko yàlla dogalee bu nu jugee ci loolu dana dem fale ca dara ba xam ngeen ni ku wax magal Touba wax bernde ba tax na kon ndigal jibee fi nga ne da ngay yëngu ci wàllum njaayum nag nga dem ca daral ba nekk fële ca yoonu xelxam euh, ca dëkk ba ñuy woowee kër kàbb ba tax na kon ñoom ña fa ne rafet loon ndigal bi rax ci dool yi nee nañu li nga xam ne mooy magal Tuubaa danañ def seen kéemtalaay kattan ba nag yi euh, njëg ya du yokk benn yoon danañ déglu Serigne Fallou Thié mbokk yi lii buñ ci jógee danañ ci toftal ganu xibaar yi euh, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké lay doon salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa وزناني هنا jërë ngeen jëf ni ki demb kon le Serigne Sidi Mokhtar Mbacké xalifa général des Mourides yàlla na fi yàgg lol te wër doon dalal président abdoulay wad mom mi nga xamni kon daf fi ñew ngir siaré se ci 18 safar bi nu deugmal Serigne Sidi Mokhtar Mbacké ganale ko falé fi nga xamni kon moom mooy guy mbind ca këram bokk na ci kàddu yi nga xamni Serigne Bassirou Abdoul khadir Mbacké mom mi ko doon gàttandu falé ci aéroport yëkkati na ko ci kanamu Serigne Sidi Mokhtar di wax ni kon président de la République dafa bokku ci ñi nga xam da danoo nango fessel ne talibé Serigne Touba la té loolu mënon na ko ci bañ fekk mu gis ne mom Serigne bassir abdou khadir Mbacké lolu fi dëgg la parce que comme ni ngi ko ci jajeufal nu bàyyi xel Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbacké alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mo ngi yëkkati kàddu yi cant ak i ci ndigalul sëriñ bu tedd bi di sëriñ Touba sëriñ Cheikh Sidi Moukhtar mi nga xam ne moo fi jëmmi Serigne Touba te ci kaw suuf di ñaan yàlla ko fi sunu borom bàyyi lu yàgg lool tam ànd ko wér di dalal ganam gi itam di président de la république maître lay Wade waaye sëriñ bi nee na mi ngi lay sant bu baax te di gërëm bu baax cant gi itam ci li nga xam ne jëf nga ko ci yoonu Serigne Touba rek la ko teg ndax xam na sa pëseeb ci sa digg ak Serigne ci wax bu ne yaa ngi koy feeñal di ko wane waxtu na ngay feeñal sag aju ci Serigne Touba ànd nga ci ngëm ànd ceeb ñeme loolu nag Serigne bi nee na yëg na bu baax ñu ngi ci sant di la xamal ne nongu na la sa taalibe jàppal na la comme ni ki waa kër Serigne Touba yi ko jiitoon jàppoo woon mais la koy seeral. di la seeral sa jëf yooyu yi nga xam ne am nga ko yéene ci Tuuba ak li xam def nga ko fii di la xamal ne cant na la cant goo xam ne waxtu we boo ko gisee ak boo ko gisul fu mu toll mi ngi lay ñaanal yàlla yéwénal say mbir te defal la tawfeex ci liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy liggéey Sénégal te njiitu réew yu bari yi bu fekkee dañu leen fal bu ñuy prêter serment maanaam bu ñuy waat ci kanamu askan wi dañuy faral di jël seen i téere téere yooyu nga xam ne kon bokk na seen i diine ba tax na kon ñoom dañuy fësal ne kon bokk nañ ci diine yooyee président Abdoulaye Wade wax ne kon loolee rek bu ñu ko xoolee war nañu mën a comprendre lan moo tax moom président Abdoulaye Wade mu nam ma fësal wala mu nangoo fësal ne taalibe Serigne Touba la te nee na loolee ba mu ko dalee def ba léegi rëccu ko benn yoon.

parce que bi ma egsee ci hélipoort bi yónnee na ay ndaw. ne bi mu egsee ci hélipoort bi yónnee na ay ndaw. ñu ganale ma foofu ñu la ñu tertu ma. ne ñu tertu ko foofu ci hélipoort. Euh, sëñ Cheikh Abdou Khader moo moo ci jiitu. su ma ñëw fii nag warul a bett kenn. président ne ñëwum fii daal war sa bett kenn. ndax euh, dama fi mas di mas di ñëw. ne fii kat moom dafay mas di ñëw. booba temps ci gouvernement bi. nekkul dara ci gouvernement kon nag man. ne président du war a bett kenn. xëy na dafa am lu ci yokku rek. ne xëy na kay dafa am lu ci yokku rek. ndax fi ma nekk léegi dama nekk président de la république du Sénégal. ne fii mu nekk dafa nekk léegi président de la république du Sénégal. ma nekk njiitu Sénégal. mu nekk njiitu Sénégal. ci kaw ñaan ak mbooloo mi majorité ba tànn moom ak mbooloo mi ci biir mu ga ca wax ni man am ma féete moom na fu mu féete laa jullit laa président la république laa am na fu ma féete na benn nattab ne ndax boo demee ci réewu chrétien yi Eh, am na ay protestant am na ay catholique ak ci catholique waaye ku ci nekk da ngay waat ci bible waaye ci nekk da ngay fa ñu fa nëbbuñu ko. ne fa ñu féete ko nëbbuñu ko. kon nag xaw lu tax ñun muy nëbbu fi mu. ne loolu moo tax ci njëlbeen nga man man yoonu murit laa mu ne boo dañu dese dégg njiitu réew mi le chef de l'État euh, ci kàddu yëm yëkkati bokk na ci ne euh, di safar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di mandargaal bis bi nga xamee ni euh, Serigne Touba da koy santle da koy sant boromam ndaxte bis boobee la ko yàlla suñ borom subhanahu wa taala jëlee woon fii ci Sénégal yóbbu ko ci nattu ba moom président de la jël ndogal ne kon 18 safar daf koy def biis bu nga xam ne des su ko liggéey te des na la ko fay moom njiitu réew mi nee na ba mu ko defee bokk na ci ñi gën a bëgg ñi nga xam ne euh, suñuy mbokk lañu bokk ci yeneen tarixa ba tey kon nee na ñi ëpp ci ñoom waneen ko téléphone nu bàyyi la chef de l'état mu dikk ci loolee. keroog ba ma ne bésu màggalu dañu koy def maanaam ñu def ko kenn liggéey. ñu ko fekk lii ma téléphoné pour gërëm ma. lii na ci kilifa yeneen tarix. am na ci kilifa yeneen tarix. téléphone gërëm ma ci félicité ma ma ni ñoom am nañu bis. te waxuñu ko ne ñoom kat am ma ne defar rafet na baax na. dañu ma ne li defar rafet na baax na. Abdou Aziz Sy Junior moom. nee Abdou Aziz Sy Junior ma ci loolu. félicité ko ci bésu Touba bi ñëpp ko bokk mel ne bésu Serigne Touba bi ñëpp ko bokk ñëpp ko bokk ñëpp ñëpp ko bokk xanaa kay ñun doon fee jiitu xanaa kay ñun doon fee jiitu rek ñi ci des ci la ñu bokk ñi ci des ci la ñu bokk kon ñëpp ji pour. kon ñëpp a benn kaawu choléra amul fii ci Touba donte doon nañ ko déggandi ci yenn réew yi nga xam ne doon wetoog Sénégal moom ki ko xamale mooy Modou Diagne Fada moom mi nga xam ne moo gàlloo mbirum wér-gu-yaram ci biir réew mi ci gouvernement bu Sénégal. Modou Diagne Fada doon ama tukki nemmeeku bokk na ca ña ko dalal Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbacké ci la wax ne jël na bépp matuwaay bu nga xam ne daanaka mën nañu jàpp ne fii ci Touba moom de su fi feebar boobee nu bàyyi ko xel. lépp yemb na mais jàpp nañ ne daal lépp li nga xam ne sëriñ bi digaloon ñu digaloon digaloon nañu ko ñaan ko président Ablaye Wade euh, defal ko ko ci bis bi ci wàllu wér-gu-yaram loolu yëpp euh, def nañ ci suñu kemtalaay kattan ba jàpp nañ ne euh, li ci ëppoon def nañ ko ba def sax lu nga xam ne ëpp na li sëriñ bi laajoon ngir rek bëgg a defar. Euh, motax ma japp ne euh, li ñu ci waron euh, def nañu ko ren nak dafa nek magal gu nga xamne ne màggal gi fay xew ci jamono bu nga xamne dañuy wax waxu choléra xam nga ñun gouvernement du Sénégal amuñu luñuy neub amuñu luñuy ñuy làq ndax yu mel nonu dang koy war di wax pour que nit ñi xam ko jël seeni jël seen matuway pour moytu ko donc ñu ngi wax waxu choléra yu nga xamne mu ngi ci benn district bu nekk ci biir réew mi district bu Bakel euh, bu kenn wax ne Bakel dafa sori Touba am na dëkk yu ko gën a sori Touba te incha allah daañ jóge foofa ñëw ñëw màggal si kon nag comme gis doon nañ ko fa fukki fan ak ñett ci weeru décembre ñu gis fa lu mat fukki nit yu nga xam ne dañu ko am gaa fukki nit yooyu traité nañ leen faj nañ leen ba ñu wér ba delluwaat seen kër euh, te boobaak léegi mën nañu wax ne déggaatuñu ko moom même ca Bakel déggaatuñ ko fa mel ne même Bakel choléra ba jeex na fa waaye nag fagaru dafa gën a dafa gën a wóor te comme magal gi ñëpp ñu fi ñëw moo tax ñuy ñaan nit ñi ñu dëppoo ak euh, yenn ñu def ku ne màggal wax bernde ba tax na kon daral yi foo dem fu ne yaa ngi fa gis ay nag benn ndigal bawoo fii ci Touba jëm ci ñi nga xam ne kon ñooy càmm yi nu daal dem ca daral ba nga xam ne kon moo nekk ca kër gàbb ca route de Xelcom ñoom nag euh, ñi nga xam ne ñooy sàmm yi gis nañu ne ndigal loolee bëgg nañ ci bu baax a baax te it indi seen participation ca màggal ga du weesu fexe ba li nga xam ne mooy njëgu nag yi di yokk benn woon euh, Serigne Fallou ci bokk na ca ñu yoroon seen kàddu yëkkati na yi kàddu euh, nun bokki daral noo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ci wàllu liggéey ak jur ndax yàlla dogal na nekk nan Tuuba ci ndaamaatu nekk bi it rafetal na lool baax na waaye ndekete yeex na noo ñëw fii ndax nun kenn ku ci ne tey jot na boppam kenn ku ci ne jot na boppam bu baax ku fa doon am benn am nga fii yaar yàlla dogal na itam am na jàmm am na kaaraange daanaka mën na maa wax ne ren benn sàmm buy daw gisuma ko ndax nag bu dugg ci daral bi ñu daal lay dugal tëj daral bi benn nag du daw mboolem lu may wax nag maa ngi koy wax ci ndigalul paate mbeng jëfe ndigal bu wér a wér a wér ci la nekk fas na yéene ñëw ci ndigal li nekk ci fas yéene ko ànd ak sëñ bi fas yéene liggéey lun yóbbu ci yóbbu suñ kër ak lun defi addiya ci sëriñ tuubaa noo ngi ñaanit ci kàttanu yàlla sëñ Cheikh Mati la yàlla na fi yàgg te ànd ko wér nu ànd moom ndax nun fii leen fas a dunde fii leen fa a faatoo yàlla jox na fu nuy liggéeyee ci ndigalam noo ngi wéy ci ndigal li faw dunyaa wala axiratu wàllu nag nag euh, am na fi bu baax a baax a baax ku bëgg wu ndaw am na ku bëgg wu mag am na ku bëgg wu suur am na lépp lu fi waay dikkee danga nga amu nag woo yóbbu màggale ko daañu ko yombal bu baax am na soppi ko tuuti gu ci ne rek mooy euh, loo gu yaatu goo xam ne gii tubaar tubaarkàlla daal amul benn coona lépp am na fi jërë ngeen jëf mbokk yi xaaj bu njëkk bi ci wàllu xibaar yi kon fii la buuree xam ngeen la ci gënoon fas bokk na ci euh, président de la République du Sénégal Maître Abdoulaye Wade nekk fi ci dëkk bu sell bi euh, Serigne Bassirou Abdoul Khadr euh, dalaloon ko ak moom Serigne Sidi Mokhtar Mbacké mu dem siyaare ji kon xalif général des Mourides dégg ngeen kaddu Serigne Bass yi dégg ngeen président Abdoulaye Wade la mu wax dikkaat ci li nga xam ne ko mooy 18 safar yi dégg nga xam ne moom moo gàlloo mbirum wér-gu-yaram ci biir Sénégal la mu wax ca feebar boobee nga xam ne kon dañ koy yàlla dogal ne egg siwul fii ci Touba egg siwul euh, daanaka euh, li ëpp ci dëkku Sénégal yi egg fa tey jël na matuwaay yi nga xam ne mat na ko ngir fexe ba loolee du am benn yoon ci dëkk bi dégg te ñi nga xam ni kon ñoom ñoo nekk fale ca daral euh, bu Touba mbokk yi kon gënu xibaar yi la ñuy tàbbi Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbacké xalif général des Mourides jox ko kàddoom mu doon yëkkati ay kàddu ci kanamu président Abdoulaye Wade dikkaat na ci pàcc yu bari bari nu bàyyi ko xel asalaamaaleykum wa rahmatullahi noo ngi yëkkati kàddu yi cant ak i ngërëm ci ndigalul sëriñ bu tedd bii di sëriñ Touba sëriñ Cheikh Sidi Moukhtar mi nga xam ne moo fi jëmmi sëriñ tubaa tey ci kaw suuf di ñaan yàlla ko fi suñu borom bàyyi lu yàgg lool tam ànd ko wér ndax jëmm la joo xam ne li nga xam ne daanañu ko yëg ci Serigne Touba mooy foo ko ne jàkk sa xel mépp dellu ci yàlla sunu borom li alxuraan bi wax siimaahum fi wujuuhihim moo tax àddina sépp maas ji di ko ñaanal ndax lu mu jëmmale Serigne Touba ci kaw suuf moo tax ba mu fi toogee ba tey la nga xam ne moom la Serigne daa santaan rek moom lay sant sant ñëpp te mooy wax ne àdduna sëpp jullit ñëpp ay mbokk lañ ne ñëpp bennoo bëgg-bëggu Serigne nag lépp lu mu bëgg rek suñ boom da ko ci defal tawféex moo tax ñëpp maase nañ ci xam ne bëgg gi mu bëgg loolu rek yàlla suñu borom sagal na ko ci ba ñëpp yàlla def na ko lépp àndaloo nekk benn kon ñu ngi ko ñaan yàlla ko suñu borom bàyyi di dalal ganam gi itam di président de la république maître Abdoulaye Wade mu ñëw fi bi nga dikkee itam sëriñ bi boore laag te fekk fi mu waral ak njabootam te buñ ci tuddee sëriñ Muntaxa Mbàkke mi nga xam ne mooy jëwriñam ci yoonu murid yëpp mi ngi toog ci wetam ak sëriñ Ahmadou Moussa Mbàkke rakkam mi nga xam ne ñoo la teer ko gàttandu la ak sëriñ sëriñ Basiru Mbàkke mi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbàkke ak sëriñ Maam Cerno Mbàkke moom sëriñ Cheikh Awa Balla ak sëriñ Abdou Fatah Mbacké sëriñ Fall ak mboolem waa Daaru Salaam ak waa Daaru mboolem njabootu sëriñ Touba yi sëriñ bi joxoon leen digal ngeen xam ba jataay bi ni mu xate mu wax ne ñi ci ëpp jéggal na leen ñu fekk na fële ca dal ko waaye sëriñ bi nee mi ngi lay sant bu baax te di la gërëm bu baax cant gi itam ci li nga xam ne jëf nga ko ci yoonu Serigne Touba rek la ko teg ndax xam na sa pëseef ci sa digg ak Serigne Touba ci waxtu bu ne yaa ngi koy feeñal di ko wane waxtu na ngay feeñal sàkk aju ci sëriñ Touba ànd nga cee ngëm ànd ceeb bu ñeme loolu nag Serigne bi nee na yëg na ko bu baax ñu ngi la ci sant di la xamal ne nongul na la secteur bi jàppal na la comme ni ki waa kër Sëriñ Tuubaa yi ko jiitoon jàpp ne mi ngi la koy seeral di la seeral sa jëf yooyu yi nga xam ne am nga ko yéene ci Tuubaa ak li nga xam def nga ko fii di la xamal xamale cant na la cant goo xam ne waxtu wane boo ko gisee ak boo ko gisul fu mu toll mi ngi lay ñaanal yàlla yéwénal say mbir te defal la tawfeex ci liggéey bi nga xam ne yaa koy liggéey Sénégal te muy liggéey bu rafet ni ma ko daa fàttalee waxtu wu ne waxtu wu ne day wax ne sa digg ak moom de lu yàgg la ndax jiitu na ngay toog ci jataay bi booba it moom nekkagul Sëriñ Tuubaa waaye wax na ne lépp loo xam ne mas nga koo dégg ci ak bëggam lépp loo ca xam ne man nga ko def ci mën tam yéene nga ko bi mu fi ba fii mu ne itam lépp loo xam ne xam nga ne bëgg-bëggam muy lu jëm ci Tuubaa ndax moom ba mu fi toogee ba tey maa ngi koy wax ba ci jëm kenn mës dégg yitey sëriñ bi loo xam ne jëm na ci boppam kenn musu laa wax ne dem naa ci sëriñ bi mu wax ma loo xam ne yitee boppam boo ko laajee sax lim mu day wax mooy awma jën yitte lu may ci dëkku sëriñ Tuubaa bi nee nag li ñu ciy góorgóorlu gis na ko tamit la ci sant ci gërëm bu baax moom nag muy Cheikh Sidil Muxtaar dafay nekk di jëmmi sëriñ Tuubaa waaye mat ko sëkk ndax ku ne xam na ne Serigne Touba moo doon rasulullahi loolu nag feeñ na ci jëmum ju tedd ji ndax mboolem ñi nga xam ne bokkuñ ci tarixatul muridiyya sax nongul nañ ko xam ne jëmm la joo xam ni nitu yàlla na daray àdduna nekkul ci moom te ku gis jëmm mi xam ko loolu it doonu kiimaan ndax képp koo xam ne nekkal nga fi Serigne Touba noonu rek nga war a nga war a mën a mel. ndax jataay jataayub Serigne day jataay boo xam ne ku fa toog ku ne xam-xamu Serigne Touba ak am amu Serigne Touba ak man manam lépp da koy ràngoo ku toog ci jataay bi lépp ne ci sa loxo am na suñu kilifa gu baax gu daan wax ne Serigne Touba mboolem lu baax li nga xam ne am na ko def na ko ci gaal gaal gi nag mooy al fulkul masxuun fulkul masxuun nag boo ko déggee mooy loo xam ne dañ koo sarse ba mu fees ba puus sa xajatu ja gaal googu yi nag mu daa wax ne caabi yi nanguwul yootaan takki ko fi nekkal la ko te ci loxoom lépp lu ci waay bëgg ci am bëgg am ci moom nga jaar doo ko am moo tax as Cheikh Ibrahima Fati mi nga xam ne moo doon jëwriñu sëriñ bi daana koy nett li am na ku ma sa wér di ñëw ci moom mu yebal ko ci as Cheikh Mouhamadou Moustapha wax ko ne ko boo demee nga yëkkati aw fas jox ko ne mu ñaanal la ndax képp ku fi nekkal Serigne Touba yàlla suñ borom dalay rus moo tax kun fa yëkkoonu gi nga xam ne Serigne Touba ko defaloon mboolem ku ko fi nekkal mu ngi ci Serigne bu bi Serigne Touba dafa wax ne akramtani ikraama man ma shaa faal wa kullu ma arabtuhu min faal wax ne yow sunu borom teral nga ma teraanga joo xam ne yow mi nga xam ne loo soob nga def ko lépp loo xam ne bëgg naa ko rek nga defal ma ko mu nekk automatisme lu Sëriñ Tuubaa bëgg rek suñu borom da koy def waxaat ci weneen bayit wax ne yaquudu lii kullama ahwa bila lépp loo xam ne bëgg naa ko suñu borom dana ma ko defal ci loolu ma koy sàkku kon Sëriñ Tuubaa nañoo xam ne mboolem lu baax suñ borom da koo dajale ci moom bis bii nag nga xam ne président ci nga ñëw di bisu màggal gi nga xam dangaa ñëw ñëw fi ñaari tànk benn tànk bi mooy jiite gi nga jiite réew mu senegal di président de la république te li la waroon ci bis bi lépp ni ma ko waxee def nga ko waaye benn ba ca toppaat mooy nga ñëw fi doon taalibu sëriñ bi kon nag jaadu na moo wax ci jenn meññant bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa waxoon ne tukkeem bi am na ko Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne min asraari xaybati bokk na ci mbóot yi nga xam ne exil bi ñu ma defoon am na ko mooy suñ borom lam ma ci njëkk defan mooy notal la ma samay noon njëkk may feeñ wax ne suñ borom xamal na ma loo xam ne jàngumu ko wax ne suñu borom itam ci sama tukki bi fukki at yi nga xam ne def naa ko exil muy juróom-ñaari ati géej gi ak yu gànnaar yi suñ borom defal na ma rasulullahi bi ma puukaroo ci mboolem yonante yi wax ne suñ borom ci biir tukki bi itam defal na ma ci mboolem koo xam ne suñ borom namm na ceew ak texe yàlla def nga sopp ma defal na ma ci biir tukki bi itam képp koo xam ne malaayika nga suñ borom defal na la ci sa nga sopp ma wax ne itam mboolem jul jinne joo xam ne gëm na yàlla itam suñ borom def na nga sopp ma am na feneen fu mu koy waxee ba wax ne bi yataallaqa lisina aslamu min jinni asri duuna man la yuslimu moo tax Serigne Touba lépp loo xam ne bëgg na ko rek dana am nit ñi nag dañ dul ràññee te dafa am benn bindkat arab boo xam ne man xaasa maa lam yarahu bi maa yara arahu maa yadnoo ilayhi maanaa kenn ku ne la nga gisul ca la nga gis rek nga koy nga ko mën a gëmee moo di euh, Cheikh Abdoul Ahad bi nga xamante ni bii àgg nañ ci élection 88 boo coolee dafa bari lool ñëpp di coow ko wax Cheikh ba Badara Diop ne ko Mbacké de man damaa amul jaaxle jaaxle gi may jaaxle mooy ñëpp dañoo dangaa wax ci kàddu gi ci rajo bi ñëpp dégg te mel ne nit ñi fasoo wuñ ko def loolu nag am naa ci jaaxle bu baax. Cheikh Abdou Lahad Mbacké ne ko nit ñi de bu fekkoonte ne jël nañ ñëpp teg leen ci benn balance teg ma ci benn balance sama benn jëmm jooy dana leen wat ñoom ñëpp wax ko ne ko fa ma tolloon bay wax de bu fa bu fi Sëriñ Tuubaa nekkoon dana wax daanaka nit nag buñ koy liggéeyloo day xam ne dañ koy liggéeyloo ku la ku la joxub gopp lu mu la defloo mu ne ko bay bayloo mu ne ku la jox téereb alxuraan lu mu la defal mu ne ko dalaa jàngalu alxuraan mu ne ko man nag dañ may liggéeyloo nit nag bu ñu koy liggéeyloo day xam lañ koy liggéeyloo lu mu doon kon nag nañu xam ne sëriñ bi ku xam responsabilité am la xam na fi li mu war a wax xam na fa mu war a nekk waaye nag du sukkandiku ci waxi nit ñi lenn lu ne la mu war a def dana ko def ndax koo xam ne bu fekkente ne bëgg nga dara boo ko ñaanee suñ borom mu def ko kon koo ko soxlawut muy wax kay nañ noppali ci wax yi ñuy wax sëriñ bi dana wax du wax wax na li sëriñ Touba ëpp na loolu ndax sëriñ Cheikh Sidi Moukhtar amul dara ci àdduna loo xam ne mën naa fees bëtam kenn xamu ko yaakaar naa loolu àdduna si commencé na ci ko ndax koo xam ne bala ngaa bëgg dara ñu andi la ko kon kooku amul dara loo xam ne nit war na koo maa teg sa kanam ba loolu di la jaaxal xam naa ci bañ a guddal ndax jataay bi gàtt na gudd yàgg na. te sëriñ bi itam waxtu timi si jege na ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñi fi teew ñëpp yàlla suñ ba dafa leen jàmm dafa leen tawféex ñu dajee faat fi nag ne jàmm nag ngeen déwén jàmm ci barke Sëriñ Tuubaa salaamaaleykum. kon mbokk yi fii la xibaaru tey jeexee may fàttali ne kon eh, yéen a ci ànd ak comité d'organisation bu màggal bu Touba mu am yéene loolu fépp fu nga xam ni mun leen fa teg seen tànk mu egg fa ak yéen fexe ba xibaar benn eh, du leen eh, rëcc ba tax na kon ni fàttali ni écran géant bii nu taxawal ci kanamu jumaa ji nekkoon ci kanamu pale bi ci kanamu résidence. loolu ñu ci djublu moy fexe ba ñi nga xamni amuñu jotu seetaan yenn télé yi wala amuñu jotu dem fenn fune nu fexe ba lépp lu nga xamni kon mi ngi tukkee ci ay xibaar fi ci dëkk bu sel bi nu mën ci joté mi fatali ni amna site internet bu ñu taxawal muy 3w magaltiretouba.org di site internet bu nga xamné xibaar yoy yëpp di ngeen ko fu mëna am mbokk yi kon ñu ngi leen jaajëfal di leen jox dig daje comité d'organisation bi ëlëg ak jàmm assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh barakatuhu وزمني هناك